mbokk yi maa ngi leen nuyu di leen ziar di wax ni fi nga xam ne fi leen teg suñu tànk bi bisub tey bii buñ ko teguwut wallahi fekk 48 heures ñaari fan ñu am ndam ci ko Macky Sall ndax moom lii dong la xam mooy kuy jàmmaarlu ak moom xamul waxtaan xamul seral xamul dara moom li mu xam mooy nga jàmmaarlu ak moom ba gañe ko baa mu gañe la te incha allah li ñu def tey bu ñu ko defaatee suba ginnaaw suba billahi ñu am ndam ndax ñoom dañoo jàppoon ne ndaw ñi duñ génn te ndaw ñi. génn daa jotaguloon rek waaye bis bu génn jotee xeex jot danañ xeex ak yéen te niñ ko defee tey ñëpp génn moo xam ndakaar ci Dakar Thiès Ziguinchor Diourbel Kaolack fenn disut Saint-Louis ñëpp génn nañ ndax kat dofuñu ñëpp xam nañ bëgg nañ seen ëllëgum réew jag te loolu nag ngir mu am faaw ñu jëlee fi ki fi nekk di Macky Sall te suñ continuer lii Macky Sall dana organiser ay élections ci février bi baa mu abal ñu maa ngi gis nag benn nër fi tey jii xool leen ko yi ñëpp ngeen xàmme ko ponkalum magam jëmmu siñ bi say morom yi dem di liggéey yow ngay liggéey leen lu dul nër yaa ñàkk jom lépp lu nit di am am nga ko sa cër yëpp mën nañ liggéeyoo dara lu dul nër di rey saw askan moo tax bépp nër bu ñu jàpp billahi yow yaakaar naa mu keneen waaye yow doo fekk élection yi siñ bi kii moo bon yow yaa bon ponkal mu yow siñ bi liggéeyoo dara lu dul nekk ab nervi yaa rusloo say waajur yaa rusloo say mbokk yaa leen gàccal yow rek ku xamoon ne ab na fi nga nekk du la jëm a jur yaa bon waaye bépp nit fu mu jàpp moom sëñ bi xamal yow moom xam ma keneen waaye élection yi doog fekk waaye li may wax rek mooy liñ def tey jii ñëpp génn quartier yëpp ñëpp génn ñu xeex billaahi buñ ko defee ñaari fan dañu am liñ bëgg ndax takk der dañ darañ sonn te ñaari fan moom ñetti fan mun ñu ko xeexaat te am ñu ndam loolu moom lu ma leer la moo tax nag fépp fu ñu jàppoon nañ jàpp mu gën a dëgër te bañ a bàyyi te xam ne ki ñu ko séqal xamul lool ki ñu ko séqal lu mu xam mooy ku jàkkoor la ak moom te na jàpp ne nag ay ndaw yu pare la jàkkaarlool ay ndaw yu gëm seen bopp ñoo xam ne seen ëllëgu réew jaral na leen lu nekk ndax ñun bëgg ñu dara lu dut réew mii di Sénégal jag kon nag képp ku bëgg a yàq suñu réew dañ la fiy jëlee bàyyi boo fi nam tu jógee ñu daal di fiy te moom dafay jóge baa ñu jëlee ko fi waaye du fi toog di continuer di yàq suñu réew te incha allah danañ am ndam ci kawam di ñaan ñun ñëpp ñi xam ne ñoo nekk ci réew mi suñu borom bi sàmm ñu aar ñu te xam ne nañ continuer mbir mi nañ continuer mbir mi nañ continuer mbir mi te xam ne incha allah ndam li ñun ñi ñoo koy am jërë ngeen jëf.